أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم e sunu mbokk téléspectateurs yi àllarba jot na nu jàkkaarloowaat ak yéen di ko sante yàlla yàlla mi nu jox tal gi jox nu wér gi jox nu moyen yi wëlbatiku nekk taxaw ci yéen nag di ma déglu kon loolu yépp yàlla lañ koy sante bu loolu paasee nu dem ci sunu yonent mooy ki nga xam ni ci la yàllay feye ci lay xoole ci lay ci lay ci lay jëfe bu nu jullee ci yonent bi ba pare nu wëlbatiku nag ci mag ñi fi nekkoon ñoom day puso bi réerewul ci ñoom parce que bu nu taxawee di wax nii ci seeni jàngat la ak seeni depin ak seeni jëf moo tax ba yépp yàquwul ba nu mën a toog nii di wax alxuraan ci ni nu nii nu koy waxtaane loolu bu paasee nag nuy sant sunuy waajur waaw parce que ki nga xam ni dafa juddoo ci daara te daara damay wax ni leer la goo xam ne leer a fa nekk goo xam ne bu boo boo boo moytuwul daf lay daf lay sànk daf lay lakk kon li nga xam ne leer goo xam ne ña fay yàqoo ak ña fay defaroo dafa am nga am waajur yoo xam ne góor góor la ba defaru fa kon bu fekkee ni dañu dem barzaq war nga leen mën a wëlbatiku di leen ñaanal kon yal na yàlla leeral seen bàmmeel bu buñ fa jógee nag dellu waat ci émission bi nga xam ni moom la def bëgg attaquer sujet bu doy waar mooy kaafi sóoratu kaafi barewul lu ci nit ñi wax lu mën a leer walla mun a mën a satisfaire nit ñi lii ma ciy waxit it dama koy sante yàlla rek nag moom mi nga xam ne daf ma awale poo xam ni mën naa wax ni ummi yi la parce que façon jàngat bi ma koy jàngat jàngewuma ko ci nit dama jàng yi ay système ba pare wëlbati ko man ko taxawal mu mu mu mën a satisfaire nit ñi bari na ñoo xam ne sax dañuy diigat waaye kii jàngul dara xaw ma luy jàng parce que jàng nanu tubaab bi ba pexe ba lu fa nekk rek góor-góorlu nu ba xam ko jàng ci alxuraan góor góorgóorlu ba génne ci loo xam ni génnul woon kon am njàng système rek la kon système bii nga xam ni maa ngi koy wax ak yéen boo xam ni moom itam am njàngin la parce que alxuraan am njàngin la di wax ni bu nu bëggee attaquer sóoratu kaaf yi saar bi téeméeri mooy juróom-ñetteeli fukki ak sa saar bi ak juróom-ñett muy taxaw ci hayu kon dund gi nga xam ne moom la nuy raconté ci saar woowu téeméeri aaya la ak fukk xam nga kon kenn mënu la waxtaan ci téeméeri aaya ak fukk ci benn émission boo xam ne aaya bu nekk mën nga ci waxtaan une wala même journée ci biir téeméeri ci biir saar woowu yàlla def ci euh, raconter ñetti histoire benn histoire bi mooy waaye ahlul kaafi bi ci des mooy euh, jokkalante Moussa beek yonti euh, ak Xidar bi ci des mooy Zulxarnayni ñaar yu jëkk ñaar yu mujj yi du sujet bi tey waaye sujet bi nga xam ne moom laay wax mu ci kaafi yi ñaar fukki euh, euh, aaya ak ñaar lañ ko lan ci wax ñaar fukki aaya ak juróom-benn nga dem ci su Isaa ci Muusaa mu foofu nu wax fi ñaar fukki aaya ak ñaar nga dem ci Zulxarnayni nuy wax ci fi ñaar fukki aaya ak juróom-ñëpp mu mel ni écriture ni mu taxawee lanu yàllay jàngal foofu parce que waa bànni Israël bi nuy jóge ca Afrique di dem nu leen di dàq ñaar fukki ñaar fukki arab ak ñaar la ñu yóbbu nu dem quatre mille cinq cents ans après Grèce Grèce ñëw encore Égypte jël fa ñaar fukki arab ak juróom-benn bi nga xamee ni yëpp yëpp peeñ na yonent bi peeñ na moo indi ñaar fukki arab yi ak juróom-ñett loolu it am njàngat la taxunu nu jóg li nuy li tax nuy jóg léegi mooy fanu yemoon ca émission ba la nuy reco la nuy reprendre waaye bala may dem rek nu fàttali toujours li nuy wax ni àllarbay Touba TV àllarba ju jot la tey nu ngi ci àllarbay fukki pan ak juróom ci mois de mars ñetti téléphone it yii laa am benn bi di eh, eh, orange bi ci des di tigo bi ci des di expresso yii ku ma ci woo rek di nga ma mën a jot boo bëggee jokkalanteeg man nang ci wax ju gudd bu dul téléphone àllarbay Touba TV kon adresse mel baa ngi tey nu ngi ci fanweeri émission ak juróom mbenn fanweer ak juróom benn mooy bunt albaab nu ne la alxuraan boo ko bu foo boo bëggee dugg da ngay dugg ci yaasin yaasin ngay awe yaasin mooy trente sixième suraat bi kon albaab ci bunt bi tey la nuyu awe pour mën a wax maintenant tarixa yi fan leen leen euh, fan lañ leen tàggate avant nuy séparer ci aaya bii laa laa yemoon damaa jël partie bii bii rek nahnu naquusu alayka nabahum bi xaq dama leen di raconter seen histoire ci dëgg histoire u ñan waa ahlul kaafi ma waxoon ni boo jëlee aaya bi mu boo ko calculer mu jox la six cent quatre-vingt-sept ma fàttali leen ni leen boo jëlee euh, euh, euh, sourate Kaafi mooy dix-huitième bi aaya bii moo nekk ca treizième ba kon ca la manifestation ba yëpp ay génn parce que ca treize la yëpp yi génne nan la ñuy jàngate kon histoire boobu dañuy dellusiwaat si rek ci li nga xam ni jàng nañ ko bi nu commencé ba léegi yàlla dafay wax ni dafay wàcce leer gi sannamtal ko nu waxtaan ca sóoratu bàqara ca ñaar fukkeeli aaya ba ak ñeent fa yàllay wax ni nan ngeen mën a ñàkk gëme ki nga xam ni moo dund leen woon mu dundal leen rey leen te moo leen di moo di dalaat leen te ci ñoom moom ngeen di wëlbatiku kooku ca émission boole lan ko waxtaane nu ne la kuntum am am kuntum am waatan bii nga xam ni mooy dund leen woon nekku leen woon kon yàlla moo ne fii kon ñë ku nekk fii rek dundoo parce que yaa ngi ci leeru yàlla gi manifestation amul nu daw ba douze toujours yaa ngi ci leeru yàlla gi kon ahad bi buy génn mooy yaa ngi commencé génn nga ca leer ga mar ma symboliser leer gi un ba douze muy benn rond boo xam ne ci biir la leer giy duggee rek di tourner du génn nu ne la kon bu fekkee ni génn na piir bu ñëw taxawee treize rek mooy mu mel ni nga am sa ballon football xam nga danga koy koy ngelaw nekk ci biir boo ko bëttee nga gis ni air bi génn ci mais boo xoolee bu ngi ni ngelaw liy génne bu fekkee ni fii lay génne ballon bi nii lay demee bu ngelaw liy awee nii rek nga bal bi bal bi nii lay awe contraire bi lay nekk nu ne la kon bu fekkee ni fii la ngelaw luy génne mu ñokk treize bu nu jëlee somme bi un ba treize mu jox la quatre-vingt-onze jox la kàllaam wax wala jox la kamaal lu mat sëkk nu waxtaanoon man la treize bii la nu defare aadama kon bu ngeen xoolee ba xool fii ba fii nu nga ca peeyu yàlla ba nu nga fi nga xam ne ni xel xelu nit manu fa sax dugg lu ñëw fii mu bind aadama parce que ci émission yi ñu doon passé wax naa leen ne treize bi mooy mooy boo ko jëlee mooy euh, conteneur bi ak aadama leer gi nga xam ni moo nekk ci biir kooku waxtaanu nante duñ ci dellusi kon da ngay gis ni fii nga xam ne avant aadama nekk yàlla moom kot boo ko jëlee da ngay gis ni dafay jël un ba douze mu jox la soixante dix huit jox la adat moo lay jox it jumla synthèse lu nuy boole kon da ngay gis ni adat bi nga xam ne moom la nuy def moo jiitu bindu nit adat lay yàlla taxawal d'abord moo tax mu ne wa arché kulli shay'in adadan nuy soog di wàcc kon fii mooy aadama nekk nekkagul fii la aadama nekke mais fii bi mu fiy nekk nekkul aadama jëmm dafay nekk aadama leer mu commencé wàcc bi mu wàccee ba fii ñëw vingt-quatre kon douze bi nu teg ci douze bi ci des muy douze quatorze ba vingt-quatre beneen leneen taxaw ni nu taxawale treize bii nu taxawal fi fii vingt-cinq fay nekk fii mooy tawaa fii la yàllay fale kon gis nga buy bind fii lay binde décision fii la koy jële kon diggante léegi quatorze bii nga xam ni leer gay commencé waaj boo jëlee quatorze nga ne un un plus deux plus trois plus quatre ba quatorze mu jox la cent cinq jox la kaaf yi parce que il faut ngeen dégg kaaf xunt la waaye xunt bi lan la ci yàlla jublu ak nan lañ ko mën a dégg parce que ñu fii ci àddina lu fi nekk rek dañu koy màndargale waaye li nu lay màndargale manoo ko dégg lu dul nga xool symbole bi ñu la tegal ni la nii la yëpp yi war a mel waaye li nekk fii yëpp te xel manu ko màcc laysa kamislihi shay fii la kon bu nu ñëwee fii di la ko màndargaal dangay gis ni dañ la ne kaafi bi ma ngi commencé ci quatorze dow ba vingt quatre nga jël quatorze plus quinze plus seize plus di sept ba vingt quatre bu jox la deux cent neuf jox la waj run mooy caverne moom itam mooy mooy Euh, euh, xam nga buñ la nee kaapi xunt dafa bari ay tur kon bii kaapi bii cent cinq tur la xunt la waaye buntu xunt ba waaye biir xunt ba buñ ko jëloon wàcc un wàcc run mu jox la deux cent neuf jox la douze ba vingt quatre nu ne la fii ngay mën a dégg en ce moment wax ji nga xam ni yàlla ma ngi koy wax ci sóoratu jumaa mu ne umuloo umuloo tawret su ma lam yaxmiluha lam bi boo ko dindee mooy ñinu ñi nga xam ni dañ leen danu dañu gàddu tawreet ba pare di ko jëfe dañuy dindi lam bi nu ni umiloo tawreet yaxmiluha fii la parce que pële la lam yaxmiluha di nekk dinañ ca egsi kon boo jëlee umiloo yàq ya miluha daf lay jox huit cent trente huit huit cent trente huit jàppal la ëwal ak aaxir kon puis lanu keebe ëwal ba aaxir yëpp dañ ko keeb fii kooku mooy leer giy wàcc mu egsi ci suuf mais bu egsee ci suuf raconté bii nu leen di raconté naan la dañ leen koy raconter ci dëgg fii nen la nen leen koy nen la ko yàlla raconter parce que ko parce que da wax ni nit ñi fan la ñu jële leenu xam te yàlla wàccul jàngal leen ko wala daf leen a jox ay tegtal ni leen tegtal yi boo ko boo ko defee xam kon raconter histoire bu jëkk histoire waa Kaafi dan la ni fii bu fekkee ni dangay dem ci benn saar bu nu tuddee inaa kaw kawsar mooy cent huit bi gisal cent huit bi xam-xam bi la jël rek dugal zéro bi la ñu jël dugal ci dix bi muy cent huit muy muy muy muy muy muy muy muy muy xam-xam mu jàpp xaqu kon dangay gis ni puis bil xàq dan ko dan dan ko piyandi mais puis ci saar saar bay taxaw ci xàqu bi bu taxawee nu ni la ca deuxième aaya ba la inaa ahtaynakal kawsara ñaareele aaya bi fa salli li rabbika du ki fii deux kon da ngay gis ni un bi ma nga mooy ma nga nekk ca kaw mooy bi wàcc deux bi mooy bi mu eggsee ci suuf kon fa salli li rabbika wanhar jàpp six cent quatre-vingt-sept mais six cent quatre-vingt-sept nu ni la ci la yàlla di jàngale dan la bu fekkee ne da koy jaamu nim mu ko tegtale boole ci di tuur deret mu jàngal la lu leen jàngalul parce que ñiy bind livre yëpp nit ñi ci ja jàng danu jaamu yàlla ba yàlla xamal leen lu bind ko nit ñi topp ciy jàng waaye jàng livre jàmbur moom du xam-xam bala ngay am xam-xam dëgg mooy nga xam loo xam ni dang nit ñi xamaguñ ko nga kon bu fekkee ne fa salli li rabbika wan xar moo nekk pii kon ci suuf nu ne la pii aadama fi wàcc waaye gisal aadama bi mu wàccee danu liggéey nu ne la ba musaa nu dagg ko kon ba ba musaa doon déparé mooy treize bii nga xam ni ci bi yàllay wàcce leer gi fa la taxaw nu dowal cinq mille ans bii commencé trois cent quatre-vingt-dix mooy mu jàpp ci ci quatorze bi mais bii dafa war a ñëw ba kañ ba pan parce que deux mille ans lañ fi dund nu ne la kañ lay mat nu ne la bis bu nit ki bis bu nit ku ku ñuul ki ak ku weex ki ak ku tukki ki àndoonoo déggoo mën a yëkkati kàddu yàlla nu ne la loolu lu mu jàpp ma ne muy aswadun mu jàpp trois cent quarante deux wa aswarun mu jàpp trois cent soixante douze wa abiyadun mu jàpp la cent trente quatre mu jox la huit cent soixante deux huit cent soixante jox la laa ilaha illa muhammadu rasulullah kon dan la ni diine islam dan la ne bala ngay dugg bala ngay manoo dugg ci diine islaam te waxoo loolu laa ilaha illallah muhammad rasulullah waaye mais laa ilaha illallah muhammad rasulullah kooku wax la waaye lan lan koy màndargalee bis bu nu toogee ba nit ku ñuul ka ak tubaab bi ak ku ak naar bi ñépp àndandoo nuy jaamoo yàlla islaam ak soog di taxaw waaye lii nu yore dañuy dañuy jéem taxawal islaam waaye islaam taxawagul moom kon danu jël lii indiwaat ko fii nu ne la boo jëlee kon fii quarante six bii aadama wàcc nuy dow ba Musaa nu ne la boo jëlee kon ci seen diggante li ci nekk mooy trois cent cinquante sept mooy quarante six nu ne boo jëlee trois cent cinquante sept mooy quarante six mu jox la trois cent onze jox la aswadun lu ñuul kon da ngay gis ni leer gi moo ñuul leer gi nu wàcce yàlla nekk ca kaw nekk leer leer nit ki nekk ci suuf nekk lëndëm lëndëm gi nag yàlla nga ko màndargaale der bu ñuul kon kon bu fekkee ni dañu nekk ci lëndëm gu tëruus ki yore der bu ñuul bi moo ciy gën a mën a diriger boppam ki nga xam ne dafa jël der dafa am der bu weex dugg ci lu ñuul day réer moo tax bi yàlla bi muy wàcce mu jëkk a wàcce nit ku ñuul nu ne la mais boo leen boolee nag ñoom ñaar mooy mooy mooy euh, euh, euh, circuit bi yépp muy 357 plus 46 mu jox la 403 403 mooy kàllamatal sawaawun mooy wax joo xam ni ñépp a koy bokk te looloo tax nu taxawal alxuraan wax ji nuy bokk ne veut pas dire que ñépp dañuy bàyyi seen wax dal di waxi arab déedéet waaye ñépp dañuy jàng araab bi ba pare conserver sa langue di wax sa langue bu dialogue bi bis bu nu demee ba nga xam ne ko euh, euh, dialogue bi dafay am di nga mën a wax waxtaan ak ki ci des mooy naar baak américain baak kii baak yooyu lu tax parce que dan la ni yàlla bi mu defaree yuur gii daf ko defalal ay informateur waxtaanoon naa ko fi sax dégg-dégg mu def ñaari nopp buy aw buy jóge fii buy jóge fii jël bët ñaari bët bii xool nii bii xool nii mu réglé leen ba nga xam ne danaa nekk benn bi yoon la benn kii la ñuy xool mu jël bakkan ñaari paxi bakkan lu jóge fii ak lu jóge fii yëpp mu réglé ko ba nga xam ne benn xeeñ-xeeñ lay am loolu di juróom benn mu wëlbati ko xar gémmiñ def ci làmmiñ information yooyu yëpp bu ko yàlla bu ko yuur gi ki dajalee wàcc ci làmmiñ làmmiñ wax kon bu fekkee ni dañu dem ba ci yàgg man dégguma bàmbara kii déggul soose kële déggul ivoirien waaye bu nu egsee ci téere bi di wax dinañ ci mën a déggoo lu tax parce que téere bi du sensé te leeral nañ ko ci façon boo xam ni moom mooy leeral xol boo koy jëfandikoo mu leeral sa xol leeral boo xam ni bis boo demee bay wax ak keneen koo xam ni dafay kim ñaari leer yi ñooy raaxaloo ngeen mën a déggoo moo tax nun la 403 non seulement ma moo jàpp islaam mais moo jàpp kalimata sawaon mooy benn wax ba une parole commune nga ñëw fii nu ne la ba islam bis buy mat huit cent lay mate te euh, euh, euh, ñun sunu génération bii nu ngi commencé trois cent quatre vingt dix nga gis ni boo jëlee huit cent soixante moins trois cent quatre vingt dix deux cent soixante dix la ciy des nu ne la lan mooy deux cent soixante dix nu ne la waasun mawaay matun mooy une adaptation une vast adaptation c'est-à-dire nan la def ba adapté waxi àddina bi yépp ci benn benn kuréel walla benn yoon boo xam ne nit ñi dinañ mën a déggoo kooku mooy liggéeyu jamono bi fii nu toll ñaareel bi mooy lan fawzul ruul amin ruul amin mooy l'esprit fidèle bi nga xam ne moom la yàlla def ci biir nit ki bis bu nga dem bu ñu demee ba tàggat ko ba ku ci nekk mu taxawal ko à partir de sa moment ruux yëpp ñooy àndandoo en ce moment là di sabbal yàlla kooku mooy li nekk ci diggante bi mais programme bi yëpp boo ko boolee muy huit cent soixante plus trois cent quatre-vingt-dix daf lay jox deux cent cinquante mu ne la lan mooy jàpp alayhi nash atul ula mooy lan mooy la la première création moo ko incombé nan la lan nun la parce que dinañ ko see dinañ ko ci émission bi ni la diggante yuur gi ni muy liggéeyee nga xam ne benn ŋaal bi day liggéey côté bi benn ŋaal bi liggéey côté bi ñu jëkk ñë ñu liggéey nenu li nga xam ne war moo waroon a nekk fii ñi ñëw fii dañuy wëlbatiku liggéeyaat li nga xam ne moom lañu ñu waroon a commencé kon lii bu bu nu ko bu nu déggee loolu rek léegi nu dégg kaafi kon dafa am kaapi boo xam ni am xalaat la ak kaapi boo xam ni am xuntu la boo xam ni mën nga ko laal nu ñëw fii aaya bi dan la ne mooy juróom-ñaareele aaya bi ci kaafi mu ne inaa jaal naa maam maa alal ard zinatun la zinatun laha li nabluwahum ayyuhum ahsanu amalan mu ne moom moo defar asamaa moo defar suuf ba pare rafetal ko lu tax parce que dafa bëgg a xam ci ñun wala kuréel yi nga xam ne daf ko def ci àddina bi kan moo ciy gënal moo ciy jëf jëf ji ji ci gën nan dellu siwaat kon fii léegi la ca yàlla dindi nañ ko li nga xam ne nit ñi ñu ñu jëkk ñi li dindi nañ ko léegi lan moo nu dese quatorze ba vingt huit ak quarante six ba trois cent cinquante sept rek la jël mooy lan mooy danuy jël bii ak bii rek dañu fi dindi bii dindi bii bii dundaguñ ko bii ci yàlla la kon ñaar yii la ñuy méngale nu ne kon bu fekkee ne treize bi ba vingt cinq mooy kaafii bi caverne bi wàcc run dan lani mais pii la aadama commencé parce que waxoon naa ko aadama treize mooy conteneur bi ak li nekk ci biir conteneur bi nu ne la kon bu quatorze nekkee cent cinq nekk cas pi mais vingt cinq bii day nekk trois cent vingt cinq mais trois cent vingt cinq fii waxo dama ko tëb mooy li yàlla binde nit ci ñaari anam la ko binde ndox ak ban ndox mi moo ban bi moo tudd salsal ndox mi tudd nut fa boo leen boolee kii dafay nekk cent quatre-vingt-un kii nekk cent quarante-quatre nga boole leen mooy trois cent vingt-cinq kon buñ la nee tawaa fa yàlla di fale mooy mooy bis boo eggee ci mën a boole ñaari ndox yi wala euh, suuf seeg ban bi nga nekk en l'équilibre à partir de ce moment laa yow yaa ngi taxaw ci vingt-cinq nu ne la kon loolu la nu ne la mooy maqaamal jam mooy la station de synthèse bi nga xam ne yëpp ngay boole nu mais kooku ban la nu ne la mooy orof kon da ngay gis ni fii adat moo fiy dow mais fii uruf moo fiy dow loolu dama ko fàtte woon a wax kon nanu ñëw ci léegi domaine arab yi nga xam ne moom lañu bind alxuraan ci la ñuy wax waxunu adat nu ne la kon boo jëlee boo jëlee cent cinq bi ak trois cent vingt cinq moo fi nekk nga dindi ci seen diggante nga dindi trois cent vingt cinq nga dindi cent cinq mu des deux cent vingt deux cent vingt mooy xasas donc nu la nu lay nu lay raconter dara histoire waaye moo jàpp it mooy commencé ci euh, euh, sóorati ixlaas boo nee xul huwa allahu ahad mu jox la deux nga boole nag circuit bi yëpp mooy trois cent vingt cinq plus cent cinq mu jox la quatre cent mu mu jox la quatre cent trente jox la naps kon fii naps naps bee fi ne mais mooy wàcc mais pour mu wàcc dama ne aadama moo départ ñëw vingt cinq mais kon egseegul vingt cinq étape la def mais pour mu egsi quarante six bii pour mu départ quarant six bii dafa départ quarante six ca kaw dafay départ wat quarante six fii mais pour mu départ quarant six fii day jóge vingt cinq ñëw ba quarant six nun la vingt cinq ba quarant six ñaar fukki étape ak benn la mais ñaari fukki étape yi ak benn boo leen calculer donc vingt six vingt sept vingt huit vingt neuf trente trente et ba quarante six mu jox la sept cent cinquante six jox la alxalifatu kon dangay gis ni yàlla ba muy bind aad maam aadama bi mu ko indee ba fanu fale woon Moussa ci ci euh, euh, euh, tawa ba mu ko falee la ba ba bala bala muy commencer euh, histoire bi bala muy commencer jëf la ko la yàlla defoon ci moom mooy taxaw muy xalifa bi parce que ba mu ko projet ba mooy inni jaa'ilun fil ardi xalifatan kon alxalifatu dafa lay jàppal 756 756 bi dañ lan moo jàpp xaata aham ah, aham mooy la ligne de flottaison ma bëgg leen ko euh, euh, leeralal ni sunu àddina bi dangay jël jaww ji mu jóge ca kaw nga ñëw ba ci géej nga mën a dugg ci biir bu ngeen ma bëggee dégg li may wax noonu la gis nga leer moo nekk ci kaw boo ñëwee ci géej ndox a nekk ci suuf mais li ñuy wax liiñ de flottaison te du bu ci du nu tolloo mooy ki nga yow boo duggee ci biir géej lii tax nga mën a tëmb ligne ba nga tax ma mën a tëmb nga lii nekk ci kaw lay nekk ci suuf loolu la ñuy wax ligne de flottaison mooy fi ndox mi jeex fi fi ngelaw li jeexe fi ndox mi commencé wala fi ndox mi jeexe fi ngelaw li commencé bu doon benn bateau nga gis ne buñ ci duggee am na luy dugg ci biir lu bato bi gën a diis muy gën a yaatu loolu moo lañuy wax ligne de flottaison loolu mooy xalipatu c'est-à-dire boo demee yow ci leer gi nga xam ne yàlla daf la bind nga nekk leer gu kenn mënu lalaal mu jëmmal ko nga mi nga taxaw di kii bis boo demee ba ñaar yooyu nga man ko balancer ba mën a dempi dempi en nga nekk xalifatu waaye kii islaam bi mu koy jëmmal dan la ne bi nu taxawee bi nu eggee ci tawwaa vingt bi islaam sunu islaam laa wax dañoo indi benn benn góor gu tudd Adnaan nga bind Adnaan mu jox la cent soixante quinze nu ne la luy cent soixante quinze nu ne la mooy cent soixante quinze boo ci dindee trente un mu de cent quarante quatre kon da ngay gis ni ndox mi wala nut fa bi lay màndargaal la jëm bu nu jëmbalee nut fa bi mu nekk nit mooy Adnaan nu ne la ñaar fukki maam ak benn moo ñoo toftalu pour que Mohamed ñëw kon da ngay gis ni xilaafa bi nga xam ne moom la yàlla depuis ci diggante vingt cinq ak quarante six bi nu koy rétablir fii dañu ko mu ngi commencé ci Adnan ba ci Mohamed kon da ngay gis ni lii bu nu ko déggee rek parce que xuntuwaa ngi moom laa bëgg a leeral ndaxte li nga xam ne nu ngi koy wax ci euh, euh, xunt bi nit ñi di ko raconter principe bi ngay mën a dégg d'abord lan mooy xunt ba boo ci duggee génn ca bu fekkee ne am nga yëg-yëg la nga cay def ba mu am yëg-yëg parce que dugg ci xunt bi bis bu jot walla wala boo boo laayeen yi moomee par centaine par jour ñoo fay dugg te du buñ fa jógee dara mu ngi mel ni màkk nit ñaa nga fay dem di dellu si te dara sa soppeekuwul ci ñoom kon principe ba nga xam ne moo nekk màkk nuy wax aju ngay delluwaat wala ngay dugg ci xunt dan la ne loolu laa leen di jéem a lan la kon bu fekkee ni fii mooy mooy mooy mooy mooy quatre cent trois donc euh, euh, euh, mooy diggante Moussa ba aadama ba Moussa dan la ne Moussa quatre cent trois moo jàpp sabaxun mooy course waaw parce que yàlla dafay dafay dafay dafay jël ñaari affaire di leen courseloo li nu mën a laal ak li nu mënul laal toujours moom lay wax leer geeg lëndëm gi le concret l'abstrait nu ne la waaye kursu boobu nu lay teg ak xilaapa bi nga xam ne moo fi nekk buñ leen boolee daf la jox onze cinquante jox la chape mooy le père kon yàlla nan lay liggéeyee ci lu tóolul dinañ ci ñëw léegi kon kii buñ ko doon bu nun la kii 746 xilaafa bi nuy wax alxilaafatu moo jàpp nu waxoon naa ko ak waa nu mun a kawminatul adam yi mooy yëkk-yëkk yi nekk ci biir tey mën a pexe ba nit dund parce que nit nit liy nekk nit ci nit du lu nuy gis nii bari na ñoo xam ne ñu ngi dox te mala mala malaa leen tane parce que kii mën a wëlbatiku dugg ci këram fekk fa doomam fekk jabaram fekk yépp mu rendi leen waaye kooku xam nga dootul nit kon bu ñuy wax nit loolu moo tax nuy soog di ñëw maintenant ci nan la ko yàlla nan la ko yenent bi dunde yonent bi xam nga dafa toog fukki at ak ñett màkka kon léegi yéen a ngi mën a dégg ni muy dunde treize ba nu ne ko jóge fi nga dem nga dem nga dem euh, kii nu mu tuddati Médine waaye bala may kii loolu damay indi euh, euh, luy luy kaapi parce que boo jëlee awalam yaraw lazina kafaru sama anna samawati wal ardi kaanata raqtan fa fatahnahuma fa jaalna min ma'in kulli shay afala tuuminoon noonu damay wax ne boo jëlee asamaan ak ard daf ne xam yàlla daf ne war asamaan ak suuf dafa taq boo boo mun a taqee nii asamaan ak ard moo jàpp cent un jàpp zaati jàpp xaa xaar xaari bii nuy wax xunt nga jël fafatahnaahuma ma tàqale leen mu jël nit naa suut nga jël apalaat duuma noonu xanaa yéen du ngeen gëm mu jàpp deux cent soixante quatorze jàpp kees gi nu defaree nit mooy raj mu kon bu yàlla dikkee ni mu yonent bi génnal nga dem màkk mu dem nuy raconter histoire bi bi ko dàqee ba mu dugg ci xunt bi nu ne ilaa tanzuruhum faqad nazara allah iza axrajal lazina kafaro saaniya isnayni iz huma fii xaar yi is yaqulu li sabbi laa tahzani inna allaha maana fa anzala allahu sakinatahu wa ayatuhu bi junoodi bi bi junoodin lam tarawha wa jaala kalimatu lazina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya ulya wallahu azizul hakim loolu mooy lan daf ni dama leen di raconter histoire bi bala may egsi fii ni yonent bi dafa dugg ci xunt bi dan ko dàq dàq dàq ba nu séen ñi leen di ñi leen di dàq nu moo Ababacar nu dugg ci xunt bi bi nu duggee ci xunt bi yonent bi dafa sonnoon tëdd di nelaw euh, euh, teg boppam ci ci ci ci pooju Ababacar waaye Ababacar moom ci xunt bi dafa gis ni am na ay ay kàmb yu fa nekk mu ni hé hé kàmb xunt de ay jaan dafa ci war a mën a nekk mu jël manteau bi mu soloon di ko xotti di ci dugal ci kàmb di dugal di mbuuse kàmb yi pour mu bañ a kii mu xotti mbuuse yépp ba mu des benn yonent bi tëdd nelaw mu toog ca ba mu bàyyi jaan génne fa màtt ko moom Ababacar <coughs> dangar ji yéeg rangooñi Ababacar dal ci kaw yonent bi moo tax yonent bi yow ni ko lan la mu raconté ko mu jël tuflitam laal ci danga ja wàcc waaye loolu ba mu koy def mooy ba nit ña demee parce que bi nga xamee ne dañ leen dàq ba nu dugg ci bi nit ñi egsee danu ñëw xool kuntu wi gisuñu ci dara te bi nu lee bi nga xamee ni euh, euh, nu ngi leen di laaj nu ngi nu ngi nu ngi leen di xool naan an gaa fan la nu aw ak yooyu gis ci mi tàgg fa gis euh, jargoñ ba ak yooyu mais booba Ababacar a nga naan ko mais ñi dina nu jàpp parce que nekkatul woon à deux ci la ko ne inna allah maanaa yàllaa ngi ñun ma di raconter yàllaa nga ak ñun boobu parce que buñ ne ilaa tanzuruhu bu ngeen ko bu ngeen ko euh, wollul waxat nazarallaahu yàlla moom wallu na ko ba pare xoolal boo jëlee tanzuruhu ngeen wallu ko mu jox la 721 jox la formation bi la formation xam nga yàlla def ni euh, euh, wayda sawayta u sawayta u mooy jàpp 720 bu ma ko formé ba pare mu ne bu ngeen ko formé wul donc kon toujours làmmiñ la leen di wax lu tax dinañ ci ñëw mu ne xat nazarawu laa yàlla moom di kii na ko ba pare bon donc kon bu ko yàlla walloo wallu yàlla bi mooy trois cent quatre-vingt-un jàpp lisaan làmmiñ kon yéen bu fekkee ne dimbalewu leen ko moom c'est-à-dire wax ji nga xam ne yàlla def ko teg te ngeen ci man ci protéger wu bu ngeen ko deful moom yàlla dimbale na ko ba pare def na ko ci moom wa waa wa iza axraja allazina kafaro saaniya isnayni mu ne saaniya isnayni bii mu ne les deux des deux xam nga dama leen doon fii mooy li ma leen di wax rek ña ñaar yi benn ngi ñaari ngi yii la rek mooy ko moom la ñuy concoural nu ni la ñaareelu ñaar bi kon mooy bi nga xam ne matière bi la wax fii nu toll nga jël ko nga calculer ko onze soixante deux mu jox la lan mu ngi saaniya isnay ni mu jox la baraka barak na awlahoo li nuur yahoo min ayatina xam nga kooku waxtaanoon nan ko ci bi bi bi yonent bi di dem dan la ni bi muy bi muy départ subhaanallazi asra bi abdi laylan min al masjidil haram ila al ak aqsa lii ci tegu kon bu fekkee ni ñaar yii la barkeel ci ñaar yii ngay dugg mu jàngal la ci ñaar yii ngay dugg nga xam ñaar yi lan la dinañ ci ñëw inna allahi maanaa jàpp deux cent soixante-dix-huit moom ngay gis ci oto yi oto boo gis nu bind ci inna allahi maanaa inna maanaa inna maanaa jàpp deux cent soixante-huit jàpp le code code bi nga xam ne moom la ñu waxe alxuraan code buñ ko tëjee ba junni at ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ba léegi nit ñi mën ko mën nu ko déco décoder mooy moo moo jàpp de cent soixante-huit jàpp kaat arbaatun jàpp xàq ak yàqin c'est-à-dire da taxaw ci dëgg yàlla indi la ci yàqin ba nga xam ne li ngay wax lu wóor la kenn du ko randal kon bu fekkee ne jaa ngi ci biir xunt bi mais xunt ba kana fa nekkoon donc loolu la ne ah yonent bee fa nekkoon 92 ak cent 231 ñu mais ñoom ñaar rek nekku noonu fa parce que dañ fa fekk jaan jaan nii lañ koy bindee muy 54 nga boole leen kon ñetti yii mu jox la 370 jox la sab atun juróom-ñaar kon juróom-ñaari leer yi nga xam ne moom la yàlla wàcce ci kaw àddina lanu boole ci ñett ñooñu à partir de ce moment là dafay leer ba nga xam ne daf leen di éblouir kenn du gis dara loolu mooy ruuxu amin kon fii laay tëje parce que xunt bi nit ñi dañu ci discuter ña nekkoon ci biir ña ñaata lañu nu ni la sa yaquluuna salaasatun rabiatun kalbahum wa yaquluuna xamsatun saadisahum kalbahum rajman bil xayb wa yaquluuna sabatun wa wa samaani wa samaanu sami saminuhum kalbahum mu ne xul rabbi ahlul ahlamu bi iddatihum maa yamaluuna maa yaxmeluhum illa xalilan fala tuma tumaari fihim illa mirain zairan wala tastafti fihim minhum ahadan c'est-à-dire mooy lan mooy nit ñi dañ doon discuter ñii ne ci biir kaapi bi nga xam ne ñooñu bi nga xamee ne yàlla daf leen a da da da àddina bi dafay yàqu ñu ne yàlla ñun bëggunu mu yàqu dañoo bëgg nga tiyal nu ko mu ne yàlla ni leen mu dugal leen ci kaapi bi wàññi seeni dégg-dégg waxtaan na noon ko ci euh, émission bale passé nit ñi di discuter ñaata la fa yàlla dugal nu ne la ñii ni ñett la ni gaa yi am ñu ne ne déedéet ñeent la parce que seen xaj baa nga fa woon ñii ni juróom la ñi ci des ni juróom parce que seen xaj a woon ñi ci des ni juróom la nu woon dénneenu ci ci des ni juróom ñett la parce que seen xal baa xaj baa nga fa woon xam nga bu fekkee ni discussion noonu la rek nga koy xool da gis ni yëpp yi dafa mel ni amul sens waaye nan ko indi ñun ci génération première génération ak deuxième génération génération Adama moo wàcc nii di demee nii génération Mohamed mooy départ nii jëm nii nu la comme ci génération Mohamed lañ ko waxe nu ni la woon mu ngi nu ni déedéet seen xaj mooy ñeenteel ba mais dama leen di wax xaj mooy kalbahum dafay jàpp 97 jàpp amaanatu li nga xam ne yàlla moom la def ci nit te kenn bugg ko gàddu lu dul nit loolu mooy mooy moom la ñu indi fii def ko muy kalbahum kon bu nee ñii ni ñett la kii ni déedéet ñeent la kon kii day dowe nii kii di dowe nii kii ni déedéet juróom la kii ni déedéet juróom benn la kii ni juróom ñaar la kii ni juróom ñett la kon nga gis ni kon ñaari façon xaatim moo am xaatim bii ngeen xam mooy bii nga xam ni moom a alxuraan indi mais xaatim bii la mag ñi nekkoon pour leeral leen ko saaba yi bi nu toogeek yonent benn bis ñi ñi ñàkkoon jooytu ko lii la leen jox kii mooy lan mooy bàqiyaati saaliyaati kii yonent bi ni leen bu ngeen jullee ba pare da ngeen di jaf 33 euh, suba su euh, subhanallah sub 33 alhamdulillah 33 allahu akbar boo jëlee subhanallah mu jox la vingt 427 alhamdulillah mu jox la 448 nga jox la allahu akbar mu jox la 289 nan ko def 427 subhanallah alhamdulillah 148 allahu akbar deux cent quatre vingt neuf nga def somme bi sept neuf huit quinze quinze et neuf vingt quatre j'ai quatre je retiens deux deux et un trois trois et quatre sept sept huit quinze j'écris cinq je retiens un un et trois cinq un et quatre cinq et un six et deux huit muy huit cent cinquante quatre huit vingt il reste 2 2 et 2 4 8 8 et 8 la gis nga bu ngeen di def calcul it bu ngeen bu ngeen moytuwul juum mhm. donc kon 864 bi moo jàpp bàqiyaati saayaati subhaanallaahi alhamdulillahi allahu akbar yonent bi daf leen dañ ko ko jooytu mu jox leen ko kon gis nga dafa tëbbi ca jëfi mag ji jox leen ni leen de leen ci barkeelu kon nga gis ni bus bu nu toogee di jàngataat parce que nee nañ ma émission bi jeex na te lii moo jara wax parce que nit ñi kii mooy bi nga xam ni moom lañu indi boo ko jëlee nen ma ko jàngale dan la ne trois cent cinquante sept bii mooy Moussa boo ci dindee lii mu des quatre cent six bii mooy Firawna boo dindee lii mu des quatre vingt douze di Mouhamed bi ci des di quatre vingt et un nu ne la ñeenti yii nga xam ne moo fi nekk bii mooy ñu jëkk ña kii ñii la ñu xeexloo Moussa ak Firawna boobu si bi bi génération dem nu indi bii Mouhamed ak quatre vingt et un mooy euh, euh, ndono gi kii 81 mooy waa waasiyatun nga boole leen mu jox la 936 jox la al zarra gis nga boo gisee tubaab yi nu ngi ci yoon sax waaye danu danu contrôle bi nu am ci zarra la la nu amagul moo tax ci la nu defa bombe bombe bombe atomique yi mais ci la nu yàq àddina bi ba nga xam ne déchets yaa ngi bëgg yàq ci defar àddina mu ngi bëgg yàq ci àddina mais moom la ñu mooy jaayilun jaayilul aaxir la dernière institution kii moo war a dem nit war na mën a tàggat kon euh, nu mu tuddati war na mën a tàggat zarra ba man ci def lu nekk ci àddina te du am benn nocivité bii nga xam ne mooy bu jëkk bi moom la ñuy wax zaati xalxiyatu mooy l'origine de la création puis la ñuy reprendre bala may dugg ci xunt wi nga xam ne moom la nekk ci ndakaaru gi kon nee nan ma émission bi géex na et li nga xam ne moom laay wax ak nit ñi rek mooy nanuy dégge xuntu ak li nga xam ne moo war a mën a ci lanu lanu war a liggéey ba mën a nun dugg ci xunt bi parce que xunt bi moom la yàlla wax doon waxtaane wax ak wax ak yonent bi it ah laxad saddaqa allahu rasulahu ruya bi xaq la tadxuluna masjid al haram kon bés boo nan la war a mën a def ba dugg ci biir génn ci nekkaat leneen kooku mooy waxtaan wi nga xam ne moom la waxtaan pour ngeen mën am idée ci seen mag yi nga xam ni ñoo fi nekkoon ba samp tarixa yi ak nan la ñu war a def ba rassemblé waat ko ba taxawal leen li nga xam ne moom la ñu war a taxaw kon foofu laa yem ak yéen eh nee nan ma débordé naa nu leen di doxaat do dox daje ba semaine prochaine eh, nu eggale rek waxtaan wi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim